asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu asalaamaaleykum waa àdduna yëpp asalaamaaleykum murit yëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ci eh, siyaare ñëpp ci jamono ju tedd ji wu tedd wi bis bu tedd bi muy weeru safar ku ko dégg sa xel dem ci màggal Tuuba waaye nekk ci wàccaay tey ñu nekk ak Baye Omar Ndiour moom eh, eh, Serigne Moustapha Massamba waaye moom soxna Asta Waalo Mbàkke ca naawel kon Baye Omar dañ lay béglee loolu tey ñaan seen borom yàggal na fi lool atu soxna si yàlla nanga ko am te ñu ànd ko ak yow ñu buggoon rek dégg say kàddu bégee ko rek doole koo ci incha allah waaye Omar bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Babacar Ka maa ngi lay nuyu jaar ci yow nuyu murid yëpp jullit yëpp di ñaanal sëñ Muntaxa yàgg fi tawet ak njaboot sëñ ko gépp yëpp ñaanal sëñ am di Modou Mbenda ak jullit yëpp di waajal bés boo xam ne ñun ñeewuñu kenn ci bës bokk na ci bés yi gën a kawe sëriñ bi moom la ma mës gis ku dem ci nattu di sant yàlla jóge ci nattu di sant yàlla moom lañ ko mës a gisee moom lañ koy santale yàlla sëriñ bi mooy sunu lépp bés bi ñu jëm mooy sunu bësu lépp ci la am lépp nee nag waaye ci lañu ñu amal lépp ñu ne kon lu ñu war a fonk la lu ñu war a sonn la lu ñu war a damoo la moom nag liggéey ko yomb na ndax day day gàddaajoo coono ba ay laaj njariñ la waaw moom loolu lay def waaw sëñ Ba boo jëm boo koy liggéeyal day gàddu coono ba bàyyi laag njariñ la kon noo ngi ñaan dem ceeg jàmm egg fa ci jàmm nekk fa ci jàmm jële fa jàmm fekkaat ci jàmm te sa borom yokk leeram dara jàng gëlëm moom te taal ci barkeem ñoo ngi sàkku ndimbal yàlla àddina ak mel ne àllaaxira ñoo ngi sant tey gërëm sëriñ bi di ñaan lu ñu mën nañ ko ci def lu ñu mënul nañ ko ci def waaw ndax bés la boo xam ne sëñ Moussa Massamba nee na cëf ko bu dul diis la maanaam gëlëm boo teg boo xam ne du diis mukk loo ko teg mu yóbbu ko te moom fa dina ko yóbbu foo foogul kon yàlla nañ ko teg li ñu am lépp mu yóbbul ñu ko ci sëriñ bi allahumma salli ala sayyidina wa yàlla yëpp ñu jàmm def ci jàmm nekk ci jàmm te ànd ak dellu si am gërëmal yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa allahumma salli ala sayyidina wa sallim jërëjëf ka jërëjëf Baye